ayca séance d'entraînement ak Alioune Seye junior waajal la 29 moom ak o bu Ngor Papa Sow mooy coach bi Iboulaye production ayca ñu ngi noonu du désert nga seen ko noonu moom tam mi ngi waaj de Mm.

ala fils one two lañ la wax one two état ban état la. état la ak caakiri. lii lay lii lay grand combat. ah grand combat. ah grand combat kay. waaw. état bi état bi. état bi baax la de. mais jëlee jëlee état grand combat. waaw. non soo ko mayee sens rek maa ngi nii. gis lu may bëri dama kañ. gis lu may bëri. mbir yu bëri nga tuddee mag kay. ñu bëgg a bëri moom di nga bëri moom. Thank you.

ah di ngeen ñu wax ñu ngi concentré ci lii neex na ñu ngi ci xëy bi

ah Seckira moomu song de. Seckira moomu song. Njool. daale daale saa dafa la ko tànk bi dafa may ñëw dafa maa sàmm la ay ay gaasam ay ay mankaan ay mankaan ay a lot of weird grand dance. अच्छा बेटा सर Goes, goes. Hey, hey. Hey, hey. Goes, goes. One, two. Goes, goes. One, two.

One, two, one, two, one, two, one, two, three. One, two. One, two. One, three. One, one, one, one, one, one. Double. Double. All right, one. Double. One. One, two. One, two. One, two, three. One, two. One, two. One, two. One, two, three. Crochet. Crochet. Percute. Percute. Yeah. One, two, you break cross, yeah? One, two, you break cross. Thank you.

Hindu tua. Hindu. Hindu. Hindu tua. Assess. Assess aye. Jai jai. Hah? Yo. Dua dua. Dua dua. Dua dua. Dua dua. Jangan, mana konyak jahat? Mana? Jodoh motor, jodoh satu. Mana ada jodoh motor? Anjay, kita tahu. Balla Gaye mooy borom 23 bi. moom am na combat sax moom ak déranger bu Pikine. ah ñoom ñoo war a bëre. waaw déranger. non reliquat bi neen xaaral ko ci reliquat bi rek. ku ko tudd nga jox ko dara. Ah, bu bëgg junni kay. ah bu bëgg junni.